jërëgënjëf TV Oumy Diankha mbokk yi ñuy topp ci euh, Leewtoo TV ñu ngi leen di gear bu baax a baax di leen ñaanal jàmm ak salaam te nag ñu ngi fii ci pikin gannaaw ra écrit xam sa cosaan fekk si benn champion ba nga xamante ne bii nekkatul ku ñuy présenté ci wàllu làmb ndax ndaanaan la te it wane na boppam marqué na empreinte am ci li nga xamante ne bii mooy làmb ji génération wane na ci boppam ñu naan ko soq bu xam sa cosaan. champion jógee barki démb ci victoire ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm ci Leewtoo TV. jaajëf Mbaye Babacar ñu ngi lay ziar bu baax di la màggal. di ñaanal waa Leewtoo jàmm di ko ñaanal bépp doomu aadama. di wax onze billah bisimilah inna waali yàlla jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di sant suma yaay bu baax di ñaanal ñëpp jàmm xam nga di ko ñaanal waa écurie xam sa cosaan commencé suñu papa Malick Ñing moo coach ak Vieux xam nga ak ñoom lëppi mbëri xam sa cosaan yëpp maa ngi ñaanal Zoro ndam bu sedd guy di ko ñaanal abo mi nga xam ne moo war a bëre samedi waaw di ñaanal suma xarit Dame ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram ak ñoom alaaji sey ak ñëpp waaw di ñaanal suma frère jàmm jetli ah maa ngi koy ñaanal kenn dégguñu ñu def lenn loo xam ne tey bu ko nit déggee xeebluñu ñu ngi toogoon suñu ruq jàpp suñu ngor xam nga xam ne lu metti dina mës jeex yàlla suñu boroom jeexal na ko tey bëri nañ ma gàmmu gay yàlla defal ma ndam ci kawam xam nga ma koy encouragé tamit di wax ne xam nga mbër mu am yar la waaw mbër mu jox nit cër uhuh. waaw te champion la champion dëgg la xam nga bi may bëreeg moom dégg naa lu nekk dégg naa ñii naan dañ koy dóor mu daanoog ndax gàmmu gay day dóor ak gàmmu gay lu nekk dégg naa ko loo xalaat waaw buñ dee dix mille personnes neuf mille yëpp gàmmu gay lañ joxoon favori comprendre nga mhm. comme yàlla dogal na ma am ndam ci kawam damay santaat yàlla rek te xam ni yàlla xëy na moo ma defal ndam ci kaw gàmmu gay mhm. mais damay jàpp ne du sama njàmbaarte waaw mhm. ah, mais combat bu ma bëggoon la ma bëggoon fonk ko ko trop bu ñu ñëwaatee ci waaw no waaj bi moom metti na ndax mm-hmm. loo waaj ñaari at moom mm-hmm. xamoo foo ci teg sa tànk metti na quoi yombul woon mm-hmm. waaw ñu ngi doon entraîné dem nañ ba nu suba la ñuy bëree combat bi yàqu ñu toogaat un an six mois presque bëreewuñu mu metti trop mu metti trop te terewul ñu ngi doon entraîné parce que lii laa ci doon sóor damay bañ xëy rek ñu ne ma suba ngay bëre doo xam fooy teg sa tànk moo taxoon ba tey bàyyiwuñu woon ñu nekk ci xam nga ba bis bi ñëw ñu def ci jom yàlla defal ñu si ndam ñu gis euh, ci waajtaay bi nga nga dem Gambie ñu gis Sokh tamit bëgg Gambie trop sa diggante ak waa Gambie lan la da nga faa am ay mbokk danga nga faa am ay xarit wala lan la. waa Gambie man Gambie mooy sama Amérique. mooy sa États-Unis waaw Gambie mooy sama Amérique quoi ndax xam nga. lan moo tax loolu. waaw dama fa am ay am di jàmm quoi. Mhm. dama fa am ay am di jàmm te su ma fa duggee tamit li may sentir beneen réew laay sentir Gambie. Mhm. waaw ku ci mel ni sama papa Jine Mori taxaw foofu bu baax. ku ci mel ni sama papa booy melax xam nga ay ñoom Kunta Junior ak sama coach ala xam nga mm-hmm. Mm-hmm. ñëpp gars yi dañ ciy jàpp quoi sama coach ala sonn na ci daj na si lu nekk mm-hmm. ay ñoom julde ñoom Malick xam nga gars yi foofu dañ ma taxaw bu baax a baax ak sama doomu nday Kalso ñu naan ko garga bu parcelle xam nga gars jàpp nañ si bu baax Gàmbi dama fa am jàmm ñu bëggee suma grand frère Moustapha ak ñoom góor ñëpp dañoo bàyyi liñ doon def lépp ñëw a sama grand Thier borom Saalum waaw moom daa jóge ba Saalum ñëw def sama kër ñetti fan ba bàyyi soxnaam ak lépp xam nga ñëw di ma taxaw pour yàlla defal ma ndam ak sama mafia bi yëpp waaw bi métti woon na ci man mais am na ay jàmbaar yu nekkoon sama ginnaaw di ma jàppale waaw mm-hmm. wax nga ko sànq combat bi ñu bëri dafoon ki nga xamante ne bii mooy Gàmmu Gay favori euh, est-ce que loolu nekkul woon nekkul woon la nga xamante ne bii pression la woon ci yow noo ko dunde boo doon dégg analyse ñu bëri naan Gamou Gueye mooy favori ci combat bi. non man moom man xaw ma fu pression di nekk si nit. man du ma tiit du ma pressionné wu dara mënut a yéeg sama kaw ndax làmb nekkatuma si xale bu ndaw. gàtt gàtt bëri naa ci ay combat te combat jànk bu nekk bëri naa ko. bëri naa ay grand combat ba tas bis bu ne bëri naa kon amul benn bis boo xam dinaa ko jël rek. mu nekk pression ci man. Mhm. parce que fi ma jëm muy biir géew boobu enceinte ba. Mhm. ragalu fa dara. bu dee bëree sama morom bu ma ci woowee ma wuy la si mhm. bu dee xeex boo ma ci woowee ma wuy la si mhm. lépp luy wàllum làmb lu jëm ci biir géew bi ragalu ma ko moo tax làmb du ma ci am pression mhm. waaw xam nga kañ laay tiit bu ma toogee man mu wóor ma ni man soq pareew ma boobaa mun naa xel ñaar mais suma ma entraîné rek préparé combat ba pare ñëw taxaw ragaluma dara luy xew ci biir géew bi loolu yàlla dogal na ko keroog bi nga jouru làmb ji jouru combat bi bi nga takkee dongali waa pikin yëpp nekk sa gannaaw euh, nga war a génn jëm fële ca làmb ja jour boobu lan nga yëg bi ngay dem. waaw ndam rek laa doon yëg parce que dama xam ne loolu topp sama ginnaaw du ay caaxaan. Hmm. comprendre nga ku ñu amul ci moom yaakaar duñ ko yóbboo noonu keroog. Hmm. te keroog boo xoolee ni ma ñëwee ci làmb ji nga xam ne soq mii nii. Hmm. yaakaar bi nit ñi am ci moom. tey da ko war a prouver. te loolu laa indi te dama gëmoon ni ak lu mën a xew man dinaa am ndam ci kaw gàmmu gay. waaw laa indi yàlla suturaal ma am ndam ci kawam. ñu ñëw ci jouru combat bi ba léegi ñu gis euh, bi nga dugg see tuus bi nga def man tuus bi impressionné ma trop parce que dañu gis nga jël tuusu Eumeu Sène reprendre ko tuus ko sa digganteeg Eumeu Sène. waaw kooku kilifa la si ñun. Hmm. waaw suñu kilifa la. ndax xam nga tey ku ñeme dañ laa dee. Hmm. te xam nga moo fi nekk moom la fi yàlla teg mooy suñu mbër mu mag. Hmm. ñun ci ginnaawam la topp. di ko xool lépp lu ñu def muy neex amateurs yi rek ñun dañ ciy jéem a jaar waaw parce que suñu kilifa la te ñun itam loolu la amateurs di xaar su ñun tey soq buy bëre ñu bëri dañuy xaar soq bu war a ambiance combat soq bu war a animer làmb loolu lépp dafa bokk ci làmb làmb nekkul dañ lay fay xaalis rek pour nga ñëw bëre dem ñëw bëre dem waaw parce que amateurs yi xaaruñu loolu amateurs yi xaar nañ tey kuy neexal stade bi kuy def loo xam ne fu ñu toog dund ni ñoom ñu ngi dund làmb mm-hmm. waaw loolu moom moo tax xam nga heure buñ ci nekkee rek dañuy bëgg lépp lu ñu xalaat lu mën a neexal bis bi rek dañ koy def. ëmb déggante nga avant combat bi. non waa déggante nañ baax. Mhm. ñoom ñëpp damay déggante ak ñoom. Mhm. boña biñ ne suba la combat bi. Mhm. malgré mënul ñëw mais yëkkati na téléphone am woo ma encouragé ma ñaax ma xamal ma fi combat bi toll ak yaakaar bi ñu am ci man. Ama Balde moom ñoo fanaan ma ak moom ba bërsët. xam nga Eumeu Sène du ma def dara te tàgguwu ma ko. waaw kon ñooñu sumay kilifa lañ nekkuñu ñoo xam ne maak ñoom ay mbër la wala ay concurrence. sumay kilifa lañ ci seen ginnaaw laa toll. topp. xam nga di ñaan yàlla liñ doon ma doon lu ko raw. Mhm. waaw. Mhm. Euh, ñu ñëw nag ci euh, combat bi euh, man combat bi li ma doon xaar gisuma ko. te yaakaar naa bëri naa ci ay morom. bëri naa ci ay morom parce que man da ma doon xaar Gamou Gueye andi xeex comme ni ñu ko doon de gisee ci yenn combat am ñu doon xaar soq tamit andi benn bëre ba nga xamante ne bii jàppante bëre pire lit pire mais combat bi gisuñu ci loolu est-ce que yow combat bi ni mu ni mu demee noonu yow yaa ngi ko doon xaar. no non wax dëgg fa yàlla xaaruma lool ndax boo xoolee mag Gamou Gueye suñuy signature yëpp maa ngi leen di wax naan leen mag Gamou Gueye mënuñoo nax sénégalais mhm. parce que tey gaamu Gueye ku ko xam-xam ni bisam day joxe ba mu jeex tàkk. dëgg la man ku ma xam-xam ni sama bis damay joxe ba mu jeex tàkk wax dëgg fa yàlla waajoon naa loo xam ne buñ bëree mag la Gamou Gueye ba lendemain tabaski duma ma bàyyi du sonn parce que xam naa ni jàmbaar laay jëflanteel te xam naa ne Gamou Gueye lu bëre bi di gën a yàgg. ndax champion la te der la waaw moo tax combat bi ni mu demee nii ma naan xaaruma woon loolu te wax dëgg fa neex yàlla xalaatuma woon ni Gamou Gueye bu ñu ñëwee dañuy jàppante mu jeex dama xalaatoon ni dañuy xeex di bëre ba keroog muy jeex waaw mais comme noonu la ko yàlla dogalee sant naa yàlla ndax ndam ndam la rek waaw ñaanuma woon yàlla weer Gamou Gueye wala ma koy humilier li ma soxla woon ci moom yàlla defal na ma ko muy ndam maa ngi koy santaat bu baax waaw di ko ñaanal di ko encouragé waaw loolu ci biir ci biir Euh, soq ba nga xamante ne bii arbitre dafa soufflé bu bu bu benn 30 secondes day déplacé wu loolu lan la woon lan moo ko waraloon consigne la woon wala nu mu demee. waaw parce que mbër mi ma doon bëreel Gamou Gueye. su nekkee ci biir surface am taxaw dëju. foofu day am appui pour xeex. centre de gravité waaw centre de gravité bu moo fa taxawee. moom Gamou Gueye bu fixé woo taxaw. moom foofu day am danger. mais boo ko déplacé dox. dama liir Gamou Gueye liir état bi mu indi. ma xam ne tey man maa ko gën a oyof. ma xam ne tey man maa war di déplacé wu. pour mais bu ñuy xool dañuy yaakaar ne yow yaa gën a diis gàmmu gay. waaw mais ci biir xool bi man mi nga xam ne maa doon bëre gàmmu hmm? bi ma xoolee état wu gàmmu gay. xam naa ne kii du gàmmu bi ma daan gis. ok comprendre nga am na lu manqué. Hmm. comprendre nga léegi ci biir loolu laa exploité te gàmmu gay xam naa ne bagarreur la mënul xaar. xeexkat la moo tax boo xoolee dama koy mépp di ko xoox pour mu jóg. Hmm. bu jógee rek ma mun ko jàpp bëreeg moom. comprendre nga te dama ko liir jàngat ko te gàmmu koy dafa nekk mbër moo xam ne bu fixé woo foofu. Mhm. bu fixé woo foofu la danger mu nekk. ok waaw mais ci biir déplacement mun naa ko nax foofu daan ko. Mhm. waaw loolu moom moo taxoon rek. Mhm. te yàlla defal na ma ci ndam ma am tamit entraîneur boo xam ni. day liir athlète. ok mu suñu coach bi. damaa ñëw ci signature contrat bi. gàmmu koy dox ñëw toog mu dox ñëw ci man. mu ne ma soq ma ne ko naam mu ne ma gàmmu koy bii ma gis. liggéey na waaye lim liggéey nii du woon pour yàgg moom. kii boo leen jàppante boo defee ay rotation day am problème mu bëre. waaw mu ne ma boo leen jàppante booy def rotation li nga bëgg da nga koy am vite fait daan ko dem sa yoon. te combat bi du metti a mu doon xam nga ma xool loolu liir ko ci gàmmu goy xam ne li mu wax tamit xëy na moom la mu gis ba wax ma ko man xaw ma ko naa appliqué loolu rek. waaw di santaat yàlla rek di wax ni xam ma. gàmmu goy champion la ndaanaan la. ñëpp xam nañ ko amul ku xamul ni Gamou Gueye ndaanaan la kon su daanoo nii du ñàkk jomam. Mm-hmm. du dara xëy na daa waroon a ñàkk bis bi rek. waaw ma koy ñaanal tawféex quoi. léegi ñu bëgg nga ñëwalaat ñu ci euh, combat bi bi arbitre soufflé euh, ñu gis ngeen waato nga ñëwalaat ñu ci ni ngeen bëree yéen ñaar. waaw arbitre daa sifflé ñu lewetoo man maa njëkk a déplacé wu dox latéral mu dox latéral fekk si ma ma doxaat latéral gauche mu sàcc benn pas ñëw ma arrière parce que bi mu sàcc waaw parce que bi mu sàccee benn paa ñëw boobu daa dugg sama biir garde comprendre nga. Mhm. daa dugg sama biir garde. Mhm. bi mu duggee sama biir garde xam naa bu duggee sama biir garde xeex la fay déclenché. Mhm. bi mu duggee sama biir garde ma effacé loolu moo tax ma teg benn pa arrière. doxaat latéral mu doxaat topp ma ma doxaat latéral mu doxat topp ma ma téye ci loxo bi mu fipp dugal ko. bi mu dugalee ku ma miime xam naa ne day xeex si ma miime mu daw si di xeex ma arrière deux pas mu daw yokk ma freiné bi ma freiné bi muy yëndu si laa génnaat. loolu moom moo tax moom mu yóotu si bi mu yóotu si ma fàq. bi mu yóotu si nga génn. bëggoo faa fekkante ak moom. waaw parce que nit buy màmm sa kaw di ñëw ak ay coups daa màmm di ñëw ak ay coups. ma mhm. arrière benn. Mhm. ñaar ñetteel bi man maa freiné. Mhm. mel ni kuy ñëw ci moom. moom muy daw pour songu ma ma génnaat. nga def demi tour. waaw man bi may génnaat fekk moom daa yóotu si. bi mu yóotu see si laa ko jàpp ko yokk ko mu daanu. nga fàq ko yokk ko mu def quatre appuis daanu jël ba nga xamante ne bii amul benn werante nga nga nga tourné page u léegi gàmmu géey daan nga gàmmu géey léegi soq fan la teg bëtam ak fan la fan la jëm. mbër mu mbër mu fi ñëpp bàyyi rek. mooy kan saa moom wax dëgg fa yàlla mbër mu fi ñëpp bàyyi rek laay xaar. waaw te ñi ñi ma ñi ma sibilen daa bëri ñoom. Hmm? su ma bëriwul ñoom mun naa xaar de. kan la fi ñëpp ku daana ak ku daanu moom laay xaar rëg-rëg guy gi ku daana ku daanu moom laay xaar Lac Rose ama neex ku daana ku daanu ñoom laay xaar gis nga ñetti combat yu ma lima limal su ma bëréwul ak ñoom mun naa toog di entraîner di xaar waaw mais mbër est-ce que diggante boobu nga bëgg a dugg xatul ci yow tamit non nu muy xatee ci man man 17 combats laa bëri bëreeg sama morom yëpp amul mbër mooy lim mu soq bëreel nga ni kii jaarukaay la amul man ay ndaanaan rek laa bëreel ay champion rek ñi ma bokkal génération ñëpp bëri na ak ñoom. mais mënu ma nekk ci làmb di bëreeg samay morom ba keroog may bàyyi làmb. mun ta nekk. léegi daal daga nga bëgg a jëm ci kaw. non loolu force la déclencher man bëgg du man maa ko bëgg de lu ma prouver la. Mm-hmm. loo liggéey. loo xam ne dama ko liggéey prouver ko. Mm-hmm. sama palmarès boo limee man ñi nga xam ne ñëpp ñoom laa daan. Mm-hmm. war naa mun a bëre kon ñii ma la limal nii. waaw. bàyyi ma fi nit. écurie xam sa cosaan laa fi bàyyi ak waa waaw à part ñooñu. bàyyi ma fi kenn. ku ñëw nga tooyal xaftaan ñëw mu bëreeg moom dégg naa euh, sa sa agent bi tey mu ne sa combat ak ki nga xamante ne bii mooy Diène Kaïré dafa ñor xomm te amateurs yi ñoo ko bëgg loo ciy wax. waaw loolu amateurs yi ñoo ko bëgg. Jibi Joolaa moo wax loolu. amateurs yi ñoo ko bëgg soo ko waxu ko de jën Kaïré tamit waxu ko mais jën Kaïré dama dégg yóbbanteem. moom Diène. daa dem ci gàmmu gay cumbukaayam woo gàmmu gay gàmmu gay ñëw mu ne ko soq day bàyyi. boo ko tegalee lu métti mu jox la combat bi nga daan ko ñibbi. <laughs> jéen kay rey wax loolu gàmmu gay. saaga yàqamtee xeex la jéen. te yóbbante galgal. yóbbante galgal ubul làmb. jéen de ngi lay xool. te saaga yàqamtee xeex la. jarul ngay yóbbante kenn defuma ci làmb loo fi deful defoo ci làmb lu ma fi deful. xaalis bee ngi taxaw sénégalais yi ñoo ko bëgg amateurs yi bëgg ko. loolu ngay yóbbante gàmmu gay noonu. comme man damay bàyyi dama bëgg nga jël avance bi ñu leeral ko mu leer nañ munoo ma moytu munuma la moytu combat bu ñor la adduna bi bëgg ko dégg nga li nga wax gaamu gay sa yóbbante boobu dégg naa ko soq day bàyyi ak bàyyi jëlal avance bi ñu bëre dem xooli leneen su boobaa ngay comprendre ndax soq day bàyyi. dafa yóbbante gaamu gay yóbbante bi ese nga bëgg mu ñëwal boppam. no waaw parce que tey bu taxawee gaamu gay sama grand frère moo taxaw ci ginnaaw mu woo gaamu gay ni ko soq mii boo ko tegalee lu métti mu jox la combat bi nga dem ñibbi man ban mbër mu mus a tegal lu métti ci làmb amul mbër bu ma mus a tegal lu métti man maa lay tegal lu métti ba keroog may ñàkk combat mais mbër musuma tegal lu métti tal ma pour ma daan mais dama ko bëgg a xamal ni yóbbante boobu yëpp da koo jarul gàmmu koy daan naa ko daan nga Modou Anta jël xaalis bi ñu bëri ñu dem suñu yoon loolu rek moo fi am bu dee damay bàyyi jël ko waa mais soq Modou wax nga ko sànq daan na Modou Anta Modou Anta Modou Anta nekk moom tamit mbër mu coriace mën a bëre mën a xeex mais mais mais mais est-ce que sa combat ak sa combat ak euh, Diène Kaïré yeneen amul ko yeneen combat yu ko gën a ñor. combat bu ñor muy ndaanaan. mbër mu fi ñëpp mais pourquoi pourquoi nga joxoñ Modou Anta kii euh, euh, Diène Kaïré. non Diène joxoñu ma ko de. Hmm. Diène daa yóbbante gàmmu gay. daa yóbbante gàmmu. ni ko soq day bàyyi tegal ko lu metti boo ko tegalee lu métti mu jox la combat bi nga dem ñibbi. léegi yow loolu daf laa métti. non wax boobu damaa métti kay pour lan mu koy yóbbante te moom mu mënal ko boppam Sokh mbër mu mbër mbër mbëru Pikine la doomu Pikine la te defuñu ci làmb lu Sokh deful ci làmb man it defuma ci làmb luñ deful suma morom la. Mhm. na jël avance bi ñu bëree dem si ñoon comme moom comme man ku ma tegal lu métti damay bàyyi kay. Mhm. loolu lay wax ji léegi nga bëgg moom mu ñëw tegal la lu métti. loolu daal laa xaar. Mhm. man moom wax ji du ma ko mën sax. champion la ndaanaan la. dama ko mus a nangul. mais yóbbante bi mu yóbbante gàmmu koy ma dégg ko daf ma naqari te dama ko yéex a dégg sax man aw ma habitude sax di wax ci mbër wala benn affaire. man li ma xam mooy toog sama ruq def tekk. ñu dox ma mbër maak mbër mu taxaw ma jëflanteeg moom dem sama yoon. mais le fait que xam nga muy dem ci gàmmu koy toog ci mu kaayam di ko expliquer ay sook soqaleel amul sens. bu dee dafa bëgg a bëreeg man. mais gàmm bu nekkee xaritam wala mu nekk problème tamit buy bëre sañ na koo jox conseil. waaw mais qu'importe. Mhm. man soxlawu ma woon sax pour bëreeg moom. ndax billaahi sama bët teguma ko ci Diène Kaïré sama bët teg naa ko ci yeneen mbër yu dul ay Diène Kaïré mais comprendre nga actuellement nii bu demee moom ba combat bi toll ko foofu. Mhm. léegi pare naa pour bëreek moom na jël avance bi ñu bëre. Mhm. kese. amateur amateur yaa ngi lay dégg promoteur yaa ngi lay te ni ñu koy waxee làmb du ak maas dabante la sa combat ak Diène Kaïré war na mën a nekk sa combat yeneen daanaan yi nekk ci làmb tamit war na mën a nekk ndax wax nga ko dafa li nga xam ne moom mooy treize victoire quatre défaites kooku amatul ku lay tegg ci làmb wala ku lay ku bañ ci làmb euh, ñu gis ne fi mu toll nii euh, làmb euh, dafa toll fa nga xamante ne bii combat yi bari na. combat yi bari na affiche yi bari na tamit ñu gis fi nga xamante ne bii mooy Pikine combat yi bari nañ fi Eumeu Sène am na combat Boy Niang am na combat Boy Niang Tapha Tine looñ ci mën a wax. waaw ñaari ndaanaan ñaari ndanaan ñaari champion. waaw muy tafaati nag muy bëre xale bu soxla. xale bu bëgg. waaw xale bu bëgg bu waa Pikine di xaar. Mhm. comprendre nga tafaati nag champion la. kenn mënu ko génne ci yi. Mhm. ndax ba mu yégee ba tey wàccul. waaw ndax ndaanaan la quoi mais nag. mu ngi ci cercle VIP bi. génn cercle VIP bi mosu faa wàcc mosu fa teggi tànkam. Mhm. ñii di bëreeg moom dañoo prouver yéeg bëreeg moom de. boo ñaa dafa prouver bëreeg ay Lac de Guiers 2 ay guy gi yéeg pour bëreeg tafaati na ndax ku bëreek la dëgër boo bëreeg tafaatin war na. c'est normal comprendre nga. di ñaanal boo ñaan ndam bu sedd guy. Mhm. ndax doomu Pikine la te Pikine laa dëkk te suma frère la. Mhm. comprendre nga. Mhm. waaw nag di la xamal ni la yaa ngi bëreeg champion. yaa ngi bëreeg ndaanaan. combat bi gars yi dañ ko soxla. dañ ko soxla teg ko fi nga ko war a teg loo doon entraîné. benn su ma bëggee nga defal ma analyse sans faral booy ñaa Tapha Tine Boy Niang ñoom ñaar ku ci nekk sa fort ak sa faible sa faiblesse. non man moom pour man Boy Niang amul foor amul faiblesse li wér mooy maa ngi koy ñaanal ndam yàlla na ko suñu borom defal. yow da ngaa far. <laughs> Tapha Tine bagarreur la. Boy Niang bagarreur la. Tapha Tine bërekat la. Boy Niang bërekat la combat boobu lu ci waay analyser mun ngaa juum. ñoom ñaar ñëpp dañuy bëre di xeex ñoom ñëpp dañuy bëre di xeex. lu ci waay di analyser. mën ngaa juum. Mhm. ku yaakaar ne yaay favori mun nga daanu ñibbi. li wér wóor mooy. boo ñaa Pikine la dëkk. doomu Pikine la yàlla na ko suñu borom defal ndam ci barke yonent bi. ay ayca bi ngi doon euh, ñu gis Eumeu Sène ki nga xamante ne bii euh, moom mooy euh, Eumeu war a ak moom tamit ki nga xamante ne bii moom mooy Bombardier. Hmm. Eumeu Sène Balla Gaye. taxawaat Eumeu Sène tax Gaye taxawaat. waaw mooy li may wax rek ñoom ñaar ñëpp amatuñ lu ñuy prouver ci làmb. Hmm. li ñu war a def def nañ ko. Balla Gaye ndaanaan la. Hmm. ndax bii mooy troisième fois bi. kenn werantewul nekk ndaanaanu balagay Gaye. Hmm. Eumeu Sène kenn werantewul nekk ndaanaanam. Hmm. ndax ñoom ñaar ñëpp. ku ci nekk amatul lu muy prouver ci làmb. Hmm. comprendre nga. mais li wérte wóor mooy suñu bëree waatee Eumeu Sène yàlla na ko borom bi defal ndam. loolu rek laa ci mën a wax. loolu rek nga mën a wax ci boobule combat ñu ñëw sa diggante ak waa xam sa cosaan nag. Mhm. surtout ki ñuy wax euh, daam ñu naan ko ñàkk caaxaan lu ngeen seek yaa moom. daam kooku kooku mooy sama ami d'enfance. Hmm. bi ñuy xale ba léegi ñooy ànd. Hmm. comprendre nga man ak moom ak alaaji sey ñooy ànd. Hmm. xam nga ñu doon ay copain doon ay xarit. terewul nag tamit xam nga xam sa cosaan ñun ñëpp benn lañ. ñun ñëpp jàmm lañ yéenante. xam nga champion yi fi nekk ak ñëpp. xam nga di leen ñaanal tawféex. di leen ñaanal combat yi ñu jëm muy Zoro. yàlla na ko suñu borom defal ndam. ak aboo mii di bëre samdi xam nga di ñaanal Eumeu Junior defet bi doon defetam bu mujj ci carrière xam nga di ñaanal suñu président bi ak ñoom Vieux ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp jàmm ak suñu entraîneur moo mhm. di ñaanal suma grand frère Jetle ah di ko ñaanal tawféex muy suma lépp tey lu ma doon ci làmb moom la barki Serigne Saliou waaw man nag xam nga mënu maa am mag mag bu sud Jetle ci làmb mënut a nekk. kàddu gu mujj santaat Serigne Touba santaat Serigne Touba santaat Serigne Touba bu wér di ñaanal suma yaay gudd fan ak tawféex. di ko ñaanal doomu aadama yëpp di ñaanal nag suma nijaay jibi joolaa ku sonn ci man xam nga di ñaanal Malick l'infatigable ah di ñaanal vieux Diaboula suma frère di ñaanal suma gaa yëpp suma booy yëpp maa leen di ñaanal jàmm di ñaanal jibi ama fi mu tëdd suñu bopp fëgg su yàlla fëgg boppam xam nga di ñaanal Zilbale junior yàlla na ko yàlla yërëm di ñaanal papa yadd yàlla na ko yàlla yërëm di ñaanal bépp doomu aadama ci barke yonent bi yeah jaajëf mbër jaajëfal nan la amoon mbégte ak contentement fekk la fi nga xamante ne bii mooy sa fief muy euh, ginnaaw raay pikin fii mooy écrit xam sa cosaan ñu ngi leen di jaajëfal suñu mbokk internet yi ñu doon topp ci Leewtoo TV di leen dig daje beneen yoon ak beneen champion jaajëf